أبى الإله كونا سيد الورى مثل الورى وقد قدا ونورا سلام رد الأنس والساد على الذي لا نزيق لا تفادت قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني منست فازت قلامي والمداد والجسد في خدمتي لمن كفاني من أدب يسر لله بخدمة المكين كل أسير أدعوكم فيكون واجاني الجميل بالبشارة في خدمة المصارف الإشارة lii yéene la Serigne Ibrahima Mbaye jànkatu xasaayit yàlla nga gudd fan yàlla nga wér man xoo maa ko wax waaye fii nag fii kenn du fi génn di jënd caaf wala miskit fii da ngay lekk bay gal law la ca. ñu leen di ziare. xam nga sëñ xumma. waaw waaw. Euh, bis bi. waaw nee na bis bi. dañ koo tuddee suñu bopp. nee na da ko tuddee boppam. nee ki ñu tuddee bis bi. sama waajur wu jigéen. nee de waajuram wu jigéen. ak sama waajur wu jigéen. ak waajuram wu jigéen. nee ñoo bokk nday ak baay. góor jéey la. nee maam góor jéey la. may jéey. soxna May Jéey nee loolu ak mbokk mënu ko passé nag loolu mooy diggante cukkurin ak tara yaa ko tudd sa bopp bis bi nee lim yor ci taraanga nee li war ci taraanga nee li war ci ci bis bi lépp def nañ ko lépp def nañ ko macha allah jërë ngeen jëf waa kër sëñ Ibrahima Dieye yu baax ñii waa kër sëñ Amdi Dieye waa kër sëñ Sam Dieye waa kër sëñ Sam Dieye waa kër sëñ Cheikh Abdou Dieye ku lim juum ne ku lim juum ku sant Dieye rek ku sant Dieye rek waa kër sëñ Souleymane Dieye waa kër sëñ Souleymane Dieye mi nga xam ne mooy xalifa bi tey ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér waa kër sëñ Alsane Dieye ca Daaru Rahman ñëpp teew nañ suñu cant ak suñu ngërëm jot na ci yéen kon nag jërë ngeen jëf gis nañ coono yi gis nañ gis nañ gis nañ lépp bis li ci war a dem bis bi li ci war a dem lépp ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko def ñoo ci sonn jël seen alal seen doole lépp def ko ci man xuma maa ko wax diglu leen nee loolu nag yàlla yàgg nee lu rafet lañ ci bëggoon waaye am nañ ci lu rafet nee kon lu rafet loolu yàlla na sax te yàgg cérémonie bi nag dara du sedd. nee dara du sedd vingt et la bu ma déggee allah akbar allah akbar ju liggéey rek nee sori mu dara du sedd ana waa Kër Ibrahima Dieye nee sori mu dara du sedd nee moom soxna Assane Dieye nee mi ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen yëpp seen tur ak seen sant nee bis bii ñoom am nañ ci xol bu sedd boo xam ne nee fi mu toll ci ñoom mënuñu ko wax sax. nee bis bu rëy nii mësuñu ko wax ñu ko wax. nee ñoom amuñu ku dul seen waajur. nee ba pare seen i doomi baay. ak seen i mbokk. ak seen i mbokk. ak seen i dëkkandoo. ak seen i dëkkandoo. ñëpp jàpp ci mel ni ñoom moom bis bi. ñëpp jàpp ci mel ni ñoom moom bis bi. bis bi ñun dong wéetu. nee bis bi ñoom wéetu ñu ci dee. nee Ibrahima Mbaye jànkatu xasaayit mii. moo nee bis buñ ko tuddee feneen moo koy jël moom sëñ Ibrahima Mbaye. nee ko tuddi wuñu bis bi nee bis bi ñoom dañ koo moom man xuma maa ko wax dañ koo moom nee bis bi ñoom dañ koo moom nee ndax fële lañ xëy ca liggéey ba ba pare soo ko ñëw fii ci kër gi nag nee kon bis bii nee ñoom seen xol sedd na ci lool sëñ Ibrahima nee ñoo ngi sant mbooloo mi yëpp nee ndax daa mel ne jaamu sax ñoo na a bëgg sëñ Ibrahima Mbaye bis bii def sax ñun njaboot gi sax defuñu nee ñoom jàmbur liñ ci def ñoom njaboot gi sax defuñu ko ci. ñi gërëm. nee ñi ngi sant ñi gërëm. ñi ngi bëgg tamit lu fu mu Ibrahima Mbaye soxna yi nee nañ foo bëgg bis bi àgg fa yàlla na ko rom Seexul Xadim. nee yàlla na kawe sa lool. la dégg fu baax. nee yàlla na dégg fu ñu dégg mu ñu baax ñëpp. nee ñoom soxna yi seen xol sedd na ci yow. sant yàlla di julli ci yonent bi. nee di sant nag Serigne Ibrahima Mbaye nee na xam nañ li nu bokk nee na mu jox leen ko nee na ci mbégte lool nee na feneen fu ko doon joxe nee na nag ñooy ànd ak moom joxe ko nee na bi mu leen ko joxee nag nee na ci mbégte lool nee di ko ñaanal yàlla nee na Ibrahima feneen fu mu nekkoon di jàngkat dañ koy xaaraani nag nee na kon moom benn bokk da koy xaaraani nee na kon ndok ba mu nekkee ci ñoom. nee na ñi nga am mbégte ci moom lool nee na di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal ak mboolem ku mu àndal bis bi nee na bég nañ nee na di ñaan yàlla suñu waajur yi nga xam ne moom lañ ko dippee suuf nag oyof ci kawam ak ñi mbokkal baay ak ñi mbokkal ndey ak mboolem julit yëpp nee na bég nañ xolam sedd na kontaan mboolem dañ bisib bi sëñ Ibrahima lañ tudde waaye njabootu sëñ Omar ñoo ko ci jàppale ay baayam ñoom ñëpp bañ njëgee kàddu lañ jaxasoo ak seen njaboot bu sante ay mi ngi sant ay rakkam yi topp ci mbooleem li sëtoo ci sëñ Omar ñoo laxasaayu ànd ak moom ba bis bi mel nii mu mel kon nee na amut seen ak pay li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal yàlla na ngeen yàgg ci ginnaaw mu yàgg ci seen kanam nee na seen taxawaay ci cër bi ngeen ko jox rëy na lool ci moom ndax lu mu bëgg rek ngeen fekk ko ca nii ngeen ko sagale yàlla nañ ko yàlla sagal mboolem ku sëtoo ci sëñ Omar wala nga sëtoo ci maam Baran Jéy na nga ci noo ci jàppee rek euh, sa xolom sedd na ca lool góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ba bañ bi ba tey kenn nëpp lu lu gone tuut tuut yaa ngay jéem la nga man ci taxawaay ci jàppale ak ci yëg ak ci ci ci ci ci ci ci ci jéem nu mu sàkku mu rafete mboolem lu askanoo njëyeen rek ku ci nday walla nga bàyyi ci noo ci taxawee Cheikh Cheikh Moustapha nee na moom nga ko moom nga ko ci defal kon yàlla na yàlla fayal leen yàlla na yàlla fay ta yàlla na yàlla fayal leen te yàggal seen taxawaay barkab Serigne Touba jërë ngeen jox si Ibrahima Cheikh Moustapha nee na sant na lool ci bëgg ci yëg gi ndax euh, lii dafa neex ndax dafa neex nit lu lu lu lu lu lu lu moom nga jox ko ko. dafa neex nee na yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi. yàlla nañ ko yàgg ànd ak yow. barke sëñ Tuubaa. xanaa dañuy jël kàddu yu ndigal rek waaye eh, xel mi matewu ko kàddu gi it leerut waaye ci ndigal sëñ Amdi Mustafaa mi nga xamante nii mooy xalifa mbooleem sëti sëñ yi. mooy jël kàddu cant rek di ko delloo ci sëñ Ibrahima mi. di ko xamal ne ko nañ ko waxee woon keroog bañ bay ñëw di fa di ko siyaare si rek mbir mi boo ko yëkkatee teg ko ci loxol sëñ Ibrahima Dieye jox nga ko waa kër sëñ Omar Dieye ko waa kër sëñ Ousmane Lo mboole seen waa kër sëñ Alsaan Dieye ñëpp bàyyiwuñ kenn kon nag loolu dañ la ciy sant ndax lu la war rek nga def man nag la ma waxoon keroog la laay waxaat tey mbir mi ki nga ko jox saa borom jox ko defal na ko ab cër. cër bu ma ko saa borom defal nag nee naa nit man na koo mag waaye nit ëpp ko cër moom man mënu koo gëm ndax li ñuy doon doon gone am na lu ñu xamoon ci moom li ñu xamoon ci moom mooy këram gi bu ko masaan a génn jàkka jee lay dem su fa jógee day duggaat ci këram gi bañ na ko mbub mi nga xamante ne moom lay sol sax amul benn tëyër bu ma sa wax ne si Ibrahima yi ñëw na ci man ma nattal ko mbubb day yëkkati bu jox la nga dem jox tëyër bu mu natt man mi jox nañ ma mbubb ba ma dem jox ko tëyër tëyër ma ñawal ko waaye nag dem marché di fa di natt lum ñëw sax du ko def kooku nag kon am na cër ci yàlla li mu xamoon mooy jàng ak jàngale ak bay dunde kon ku ko jox ab bis jox nga ko ko ko yelloo waaw comme ni ko sëñ waxee nag da koo delloo dafa delloo buum ca mbay mboy ga rek ndax euh, euh, way juróom gu jigéen moo euh, sëñ Ibrahima ji ñoo bokk ndey ak bay kon bu ko joxee bis bi daf ko daf ko daf koo war kon nag sëñ am di nee ne mi ngi sant ci loolu ndax am na ci mbégte bu baax a baax a baax moom mboolem ñi mu bokkal sëñ Amar ne mi ngi siyaare ñëpp ne mi ngi tàmbali jataay bi ne bi ñuy tàmbali jataay bi ne dafa am ñaari mbokkam yu dugg si ne mu ànd benn xarit ne dafa am benn xarit ne bu nekk ca Gàmbi nee waaye mi ngi dëkk bawal nee moo yebal ñaar ñiy toog di ay magam nee ñu ñëw fi ci suba lañ fi ñëwoon ñoom ñaar ñi toog nee dafa nar mu jógee fii ñëw saafoonteeg yéen waaye nee gan ñi ñoo ko téye suba ba léegi nee mënta génn nee ñoom nag ñooy tàggoo nii waaye ñu xam ne aadama aadama xaritam la ne aadama léppam la ne moo waral ne aadama jël addiye ju bari boole koog magam yi ñoom rek bu ñëwoon doy na sëkk waaye dañ caa boole addiye ju baree bari jóge ba bawal ñëw fii ci Mbàkke Bawal fekk si bis bi ne loolu rëy na ci moom lool ne ginnaaw yéen a ay kilifaam ne mu présenté leen ñaari ganam yu tedd yii ngeen xam ne seen teewaay yitte la ak yëg ne loolu moo leen tax a jóge ba Bawal ne am nañu dëkk ci dëkk bi ñoom ñoo leen fi njëkk tey ne ndax ne doxal seen rakk jooju tànki tawféex ne kon nag mi ngi leen sant bu baax a baax a baax ne comme ko da ngeen di bëgg a tàggoo di bëgg a wàññeeku Ibrahima Mbaye jànkatu xasaay nee na xolam sedd na ci yéen de ne mi ngi leen di ñaanal yàlla tànk yëpp tànk yiw tànk yëpp di tànk ñu gërëm nee xolam sedd na ci yéen de nee nañ ko santal aadama te santal leen ko seen bopp yéen nee li ngeen def rëy na ci moom lool nee aadama moom Ibrahima Mbaye mi lebalu ko lool de nee mi ngi sant bu baax a baax nee ginnaaw bu loolu jàllee sëñ Moustapha Dieye mi jiite njaboot gi yëpp nee buñ ko tuddee nee mu yóbbaale njaboot gi yëpp nee lam wax fee léegi ci soxna ya bis moom boo ko tuddee tudde ko sa bopp daanaka du jar wax ju bari de ndax booy wax dafa mel ne sa bopp rek ngay wax te nit du wax ci boppam ne liñ ciy def mooy liñ fi jàng ci kaamil alxuraan ak yeneen daara yi nga xam ñu nekk ci biti dëkk bi na kenn ku nekk ñu waxoon la jàngal ñu ab lim lim boobu bi ñu ko wàññee sànq ñaar téeméeri kaamil la ak fukk ak ñett loolu nag ku mu doyul dara dut la doyati ne yool boobu yàlla na fekk sëñ Ibrahima ji fa mu tëdd ak mbooleem ku sëñ Omar jur ak mbooleem ku sëtoo sëñ Omar te jóge fi ak ku bokk sëñ Ibrahima Dieye ak noo bokkee ak moom rek ak mboolem jullit ci daraje sëñ Touba ne sëñ Amdi Moustapha moo dafay ñëw doon leen wax naan ne xolam seet na moo tax mu ñëw fi leen ndokkel ne bu ngeen gisee mu def lii li ñu war a wax lépp temps ni bi du ñu ko may moo tax ñu dem fenn fu ne ci jataay waxtaan ak ñoom tatagalan toog ñoom wax leen ne leen xolam sedd na guy ci yéen ne li mu wax sànq fee ca soxna ba mu fa jaaree ne bis bii buñ leen ko tuddee ñun ñu leen ko tuddee yéen ñu ko gën a fonk waaw waaw jël ngeen seen alal def ko ci bis bi ba ñu joxee lañ ñuy jox ba ñu joxee li ñuy jox lañ door a tëdd nag lañ door a tëdd nag mën nelaw mën a nelaw nee kon mi ngi leen koy jaajëfal di leen siyaare baax a baax di ñaan njaboot gi yàlla def ci barke barke alxuraan karim jërëjëf dafa dawal otoom ànd ak akom njabootam ñëw seet sëriñ Adama Sey foofu nee seet sa Adama Sey mooy caatam paa bi nee kon nag loolu lu rëy la yaa ko njëkkee nee nga dawal oto Touba ba foofu ñëw seet si ko ndax neex si ba noppi yëkkati xës di sëñ bàmba yi ne kon nag yow la aadama war a sant war a gërëm ne ñoom amuñu sa fay de ne ndax loolu lu rëy rëy rëy la ne aadama amoon na yéene ñëw waaye bi mu fi jógee fii ci Mbàkke Bawol daa yëggu dara waaye nee bu sañoon tey jii ne waxula kër ga waaye dëkk ba yëpp ay ñëw ndax lebal nga loo xam ne si ne mën la koo fay ne yow yaay baax di wax rek ne aadama defu loolu dara yaa ko njëkkee jërëjëf mbay ne toujours yaa ngi koy nemmeeku ne yow Ibrahima ko ko yéene la ndeysaan ne xam na ko ne moom defuloo dara jërëjëf ne toujours xam na da nga koy yéene ne xam na ko baax a baax a baax ndeysaan ne mi ngi lay sant de ne li des lépp ñi wax nañ ko ne digganteem ak moom ne mu xam na ko baax waaye yëg moo am solo yëg koo yëg mu wadd jërëjëf salaatu sinasi azim wazam ala nabiy almuntaqa almay maran bi rabbi aman ma yusnin ibadatan sawab amalani xabarani rabbi ma taqaddama وما تاخر بما قدما تاب علي توبة قد قسلت رب عيوبي في النبي فانقجلت شكرت على النبي محدثا مزادني ما قادني فادسا زادني الباقي في جاي راقي ما قادني لشكري بالأوراق دارني النعم للشكور بمتي عبد وشكور جميل متي لا يشال بشرى سرا وجهرا للنبي البشرى إلى الذي وجدت ما قد أغلقا باب جهنم وأنا انخرقا خدت إلى المختار ما قد فتى باب جنان وإلينا انفتى فرأت خير الخلق في القرآن وولدا وموعد الصمان عجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى حجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى حجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يستفى خلب للأريان مت المشفى ولي جود في ذا ما يستوى سفى الإله بالنبي ترى إلى سواي قائدا للبرى تاب حياتي بالنبي المنتقى وقال لما ودوس التقى نويت شكر مالك على النبي رمد كل أقرب وأجنبي قادني الإله ما بي ضار كوني عبده القديم والسار رديت عمن جادني بكوني حبدا له قديم خير الكون واجاني القرآن بالحلاوة وقادني خير الورى التلاوة حديث خير الخلق ينيز بعد كتاب من هو الأنيب جاد اليرواب بالتنادي وهو تعالى خير من ينادي حويت بالقرآن سرا وجبا أن لا يزال أبدا متجبا الكتاب رابيا عن ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe bi yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Saliou Bousso mi te monsieur le ministre boole ñu ci délégation bi ne woon bu ñu ñëw nañ woo Serigne Saliou Dieng mii nga xam ne fa yii yëpp mi ngi koy woo di ko soññ ci màggal gi ngir cofeelam ci ibrahim Mbaye ak dëkkandoo gi ñu dëkk monsieur le ministre moo waxal boobu loolu na ma Serigne Saliou bi nga ko doon woo doo ko soññ na ma boobu ñëw na nga ko woo bi may ñëw maa ngi ànd ak Serigne Saliou Diatara ak Serigne Saliou Bousso ak Serigne Omar Seck Serigne Saliou Bousso di kilifa gi monsieur le ministre ne woon nañ ñëw indil ko li mu fi daa joxe ndax démb la ma démb daa nekkoon conseil des ministre ba si guddi gi laa ko jot mu ne ma màggal si ibrahim Mbaye gi de nañ daa def ba weesoo gut muy jënd aw nag indi fi ma ne ko jàpp naa ne de xaw naa guddi ci laa wooye si Ibrahima Mbaye ñëwal fi sama bopp fekk fi mu jënd nag wu mag wu yéeme ma ne ko nag wi de xanaa kon da ngay joxe njëg waaye nag moom ma nga fa mu ne ma kon danaa la yónnee njëg gi nga tool ma ko kon sëñ Saliou Bousso noonu la ko sëñ Moussa defee mooy nag wi mu fi daa joxe joxe na njëg gi jox nañu ko andil nañu ko si Ibrahima Mbaye mi teg ko ci loxoom loolu nag lenn rek moo ko waral mooy daa xam ne si Ibrahima Mbaye mi lu ko waaye defal waa Mbàkke gépp nga ko defal ndax moom jànkata waa Mbàkke la te amul lenn lu muy séntu ci benn baas boobu waa Mbàkke fu mu fi dem day jàng ba noppi rek lu ko waa baas booba jox baax na ku ni man mi sax léeg-léeg mu jàng ba ba doyal ma ne ko ah tey moom màggal gi génnu ma ci bay ba nga yóbbaale li nga li nga jot rek mu dem yoonam te noonu rek la nekk ñëpp nag kon bis bii ñun ñëpp ñoo war pour mu mel ni war a mel ndax nit ni ma ko waxee kilifa gi léegi fi ni bu fekkoon ne dañ naan musicien Mbàkke la wala ñu ne footballeur Mbàkke la wala nangam Mbàkke la dangay gis wàccuwaay bañ koy jox kon buñ ne jàngkat bi mooy jàngkat ak waa Mbàkke di war nañ ko jox wàccuwaay bu mel noonu kon ñun yéena a juuju lañ am ci yow taxawaay boobu la ñu fas yéene am ci yow loolu la waa Njatara am ci yow loolu la waa Mbusoo bi am ci yow loolu la waa Mbàkke am ci yow loolu la waa dëkk bépp am ci yow moo tax bis bi mel nii mu mel nii ndax doo tànxam lu kenn rawatina ñun ñi suñu maam Mor Mbàkke ndokk maam ñoo fi bokk yendu na lu ko gën a waral mooy doo am ñaari semaine boo yëndu sama kër wala yënduwoo këram añee fa toog ba ngoon jot te la ngay añee sa moo dàq la nga lekk da ñëw summi sa mbubb te doom fekk ci kër ga yendu fa ba ñoo koy defal fii it ñu bëree bëri bëri te ñu ñu nga koy defal ñëpp it dàquñu la dépasse yàlla ñu ko dàqale waaye da nga koy def ngir ak mbokk ngir ak laabir rek kon ñu ngi la sant di la gërëm bu baax a baax di ñaan bis bi daal ngërëm li ñu ci wut yàlla borom dajale ba ma sëkk mu xëpp ko sa kaw te xëpp ko ci waa kaw waa Mbàkke gépp Serigne Sam Mbaye mi nga xam ne moom la defal bis bi yàlla ko yool fekk foofa te xam ne moom ndamal waa Mbàkke la Serigne Sam Mbaye li gën a yéeme mooy Sëñ Mor Jaara tuddee Sëñ Mor Jaara lañ tuddee Sëñ Sam nga nekk ci dëkkab Sëñ moor Jaara di sant sant ak Sëñ Sëñ Sam mbay mu delluwaat si lépp delluwaat ci loxoy suñu Mor Jaara kon bu ñu ñëw ànd ak sëtub suñu Mor Jaara ànd ak euh, waa Njatara gii nga xam ne ñoo suñu Mor Jaara ñoo bokk lépp ànd ak suñu Saliou Dieng mi ak ñun ñi jógee Njaayeen loolu day mat sëkk si ñun kon daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sàkku nga ñaanal monsieur le ministre lii nga xam ne nii moom la moom la ko waa Mbàkke teg si loxoom mu àggee ko fa mu ko bëgg a gis nañ nag mi ngi am yéene mi ngi tàmbali liggéey ñaanal ko liggéey yëpp àgg somb yu somb yëpp àgg ci barkeb Xaadimu Rasuul sëñ Mor An Gueye it naa ko nee na incha allah ministre jokkoon moom dana ñëw guddi cérémonie bi ànd ak ñu war a àndal ñëpp ñu ngi xam daal lu mu fi joxe xeeb nañ ko buñ ñu sañoon bis bi lépp moo koy def wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kilifa yi teew ci jataay bi yëpp yi jiital sëñ seex Bami ak sëñ Youssou Ba yi bokk ci njabootu maam Baara saajo yi rafetlu seen teewaay bu baax waaye di siyaare. sëriñ Cheikh Diop ak sëriñ di jóob mee toog ak mboolem njaboot sëñ Omar gi ñu àndal ñëpp di ay góor ak jigéen ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di siyaare sëñ saali bu sama baax mi toog jiite délégation bi ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di leen jaajëfal di siyaare Baye sëriñ Jatara ak sëriñ saali ak mboolem ñifi teew ñëpp. siyaare sëñ Abdou Khadir njaay mi nga xam ne fi lay yandu di kenn ci man maa ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di sant bu baax baax ministre di ko jaajëfal ci jëf ji eh, duñu wax ne gulet addi yi at yi yëpp mi ngi koy def eh, nit bu la defalee defalaat la defalaat la te sax maanaam defaloo ko lu jar mu lay defal loola loolu yéene mënul weesu loolu at mu jot sëñ jiili mii rek laa koy wax sëñ jiili mooy mooy moo ko koy wax mu mu mu mu mu jëfe noonu kooku nag mat naa sant mu koy sant leen wax ne leen suñu sedd na ci moom nit kat bu fekkee ne lu baax looy nekk mu nekk ci ak yow ah, boo doonee as góor war nga koo sant war nga ko ñaanal ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko dolli ko ay taw tawféex ci lim bëgg defal ko lu kawe njortam na ko wax ne sunu xol sedd na bu baax ci moom sunu ñaan dana jëm si ci moom ndax naa ne moom dama am diggante ak moom diggante sama digganteek moom loolu am nañu tokki jataay bi ñu ko xam loolu nag jërut wax ci jataay bi waaye loola lañ jàpp te loola it waxtu nekk ci lañ nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko taw tawféex sëñ jiili daal kàddu yi sant moom sant rek la mënul weesu sant suñu xol sedd na bu baax sant sëñ Saaliw ñu dëkkal moom it muy ku baax wax yàlla waxtu wu nekk mu mu mu mu nuy nemm ko ci lépp luñ bëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla jàkk ji ñu bokk it waxtu yëpp ci la koy jullee loolu moo di mbaax euh, ñu kàbbaree waxtu subuhi ba waxtal insha yi waxtu yëpp da koy ànd ak ñun moom sëñ Saliou mi di ku bëgg diine ku bëgg lislaam te ñun loolu la ñu xool ci nit kon nag ñu koy ñaanal yàlla defal ko tawféex kon alkadde yi loolu la euh, waa njóobeen nii nag ñoom dañuy ñenn ci man am yitte ci man am aajo ci man lool nii ñu def nii ànd ak soxna yi buñ ne suba di bis bi lañ ko daan def ànd ak mbooloo mu takk ñu jàng fi li mu xasaayit yu bari ne tey ji dañoo ne bis bi du tey suba la ma leen mu ngeen bàyyi woon ba suba nag xam naa ne ngeen <laughs> ñëw dana wéet lool waaye lépp yéen a ju ëpp la rek leen ñaanal yàlla defal leen tawfeex di siyaari ñi teew ci jataay bi ñëpp sëñ seex suñ xol sedd na bu baax xol sedd na bu baax lii yitte la aajo la ngeen siyaareel na sunu sang ba sëñ Maodo ñaanalal nu ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi barke sëñ Touba ministre daal moom sant nañ ko gërëm nañ ko sëñ saaliw loolu la ñu ko jotalal bu baax a baax wasalaatu wasalaam. comme ni ko mbokki mi waxee day mbàkk gépp ko bokk bi maanaam xañ na sa wax ne man la féeteel mën naa am muy yëfi njaayeen ak ndof waaye nag sañes na ko wax ngir melokaan ak jikko dama ko wax léegi ne ko. ku fi ñëw ne sama wëlëre nga sama xarit nga ku baax nga waaye bu mu tax nga yéem wax yooyee yëpp xoolal la nga nekkoon rek ba loola am muy qualité ndax man a jàng mu neex ñëpp ko man waaye na qualité jàng la ko yàlla defal muy xam gëdd xasida am yar am teggin te jox nit ñi seen i àq kon nag ñi ngi ñaan suñu borom Euh, yàlla kàttan na la te sàmm la te nangu bépp xaajo bu fi doomu aadama indi rek yàlla na ko suñu borom faj barkeb Cheikhuna Omar Diop barkeb Sëñ Samba yi suñu xol sedd na indi na nuyoo bu waa Njóobeen gépp nag ndax yow yàlla yàlla yàlla moonu boole ak yow saalihaat yaa ngi nii li ma sëñ Abdou miy wax ne ma euh, xam nga démb euh, waa Njaañ ñi dañoo tudde woon sëñ Omar seen bis ba ñu yendu woon ca looloo nu fatt bañ def na tey la bis bi waaye kon ñëppee ñëw waaye ma kon nan ñëw rek ànd ak daara ji ak daayira maam jaare bi responsable yi ñëw ziar la ndokkeel la ñaanal la ñaan yàlla suñu borom ñu fekki waat déwén musliman ali xayru samadi jaadal ya jaamiu bil manaafi musawniyan bi anil madaafi maa wuyubi man amaani anifaq bil muntaqa la fi faaq تفهم من قبل مني الفرطاء على الذي بي دفعت القرطاء طاب فؤادي بتوجي جزاء ربيني بما كتبت رجزاء تاب فؤادي بتوجي جزاء ربيني بما كتبت رجزاء توجهت بيمن الجميل تحلية الباقي بلا خمول ملكني المغني عن الملوك بي وبالماء عن الزوك خدمني الله على الخطاب بالمنتقى المثبت الأقدام حسن مغايب بخير كسبي بل بالإله والإله أسبي مدني الباقي الجميل مددا بالمصطفى لفي لسان سددا نبينا أمل زاد ليلا به كفاني لا وترك منا جبت له مساقة بالغلام وغاد لما قد ما كل ملام من علي بهنا منان وبالنبي تقول يا الجنان من علي بصفا ديان وبالنبي فارق اللسان قلوب أهل الله لي قد أطلت بجاه ما يولاه قدلت عمدا خير العالمين أرجت مني عيوب النسوي خرجت محمد طائر مطير مطير سائر منمة تتار محمد سائر مطير ظاهر منمة تتور نبينا فاتح مقدس مطير من اقتراه اندس نزامة إلي سرا كل فيك فالأتى والذرى حبادتي سيد ربي والسلام على الذي زاق لخير وسلام تفهم من جلال النزال على الذي فايق الأمثال إلي خادت النبي الله بشر لا إله إلا الله ما تاج والأزالي زمد قبض من هو النبي محمد إلى سواي ينتهي الدجال وكل ما والى والأوجال بت لله بالذي سرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثواب من لا يحبط الله ثواب من لا يعبد الله حنتا إلى سواي وردادي سنتا سبحان من إلى الجنان عزما كليتي عبدا بي متزما xaniitu billaahi laa nabi wali bi yakunu bil mabdi fos bi ismatin min al azari